yaay sa dam sunu maam jaaratullaahi nema ma Cheikh Fallou Cheikh Fallou laayi yaay sa dam sunu maam Habibullaahi nema ma Cheikh Fallou Cheikh Fallou laayi yaay nee na nee na mi ngi sant mboolem waa Kajoor mboolem waa bitim réew ndax buñ tuddee réew sangam réew sangam dana xat waaye réew mi yëpp ak biir réew mi bitim réew ak Kajoor ak fépp ak Touba mi ngi sant ñëpp nee na ci turu liggéey bu tell bii nga xam ni ñu ngi ko defal Cheikh Modou Massamba Diop Sam te jëwriñam yal na fi gën a yàgg ñun te wér muy sëñ Basirou Diop moom sëñ Modou ba Diop Sam waaye jëwriñi Cheikh Abdourahim Diop mi nga xam ni yal na fi gën a yàgg ñun te wér mooy jëwriñi sëñ Massamba Diop Sam te njabootu Cheikh Massamba Diop Sam nee na ñu ngi sant ñëpp kàddu yi nag dañoo xam ni timis si jot na moo tax mu tënkee ko noonu nu taatan bu baax na kàddu yi sëñ Modou Mbacke sëñ Modou Mbacke mii nga xam ni moom ay kàddoom la ñuy fas yéenee jëriñoo dugg gi muy dugg sunu nopp dugg sunu xol yal na doon suñu defaru tey ak ëllëg sëñ bi ngi nuyoo nee na asalaamualeykum nee na ngi nuyu ñun ñëpp nee di jottali siyaare bi. di ji jiital Cheikh Mouhamadou Cheikh Mountakha Mbacké xalifa Cheikh li murid di tee Cheikh di ci teg Cheikh Abdoul Baraka muy xalifa Serigne Fallilou di ñaan yàgg fi lool ak nun tawér liggéey bi ñuy liggéey lislaam ak yoonu Sëñ Tuubaa yi àggale ko ni ko bëggee tan ànd koog ñoom ak njaboot gi yépp ak nun taalibi yëpp ne ginnaaw loolu nag niñ ko baaxoo defee rek nee na mbégte mi moom mim mu ci am fu fuñ ko takk rek weesu na ko nee na moom dañ koy sagoo waaye moom it dañuy sagoo nee na moom fu mu nu gisee rek day dal ndax taalibe gi rek ak rafetal gi nee na ndax ak taalibe rek moo boole seex Modou jomba sàmba ak sëriñ Fallilou ndax Serigne Fallilou Mbacke ku ne xam ne ni mel ci ak taalibe di ci maam Cheikh Rahma Fall nee nee na sëñ Modou Diomba Samba yit ku ne xam ne mooy ki jëkk a jokk ci sëriñ Fallilou. nee na cafeel gi nga moo dox seen diggante ak taalibe rek moo ko lal muy Serigne Touba mi nga xam moom la ñu bokk moo nu boo moo leen boole woon ku nekk la nekk sa digg moom moo ko dox sa digg ak na nag taalibe gu moo taalibe googu rafet googu moo waral suñu jotaay bii nee na moo waral dem cofeel gi dox suñu diggante ñun ñëpp rek ñoom ñaar seen diggante cofeel ga fa doxoon loolaa ko waral. nee na mi ngi koy feddali ci suñu digg ak moom du firndeel suñu digg moom loolee. nee na daa danoo bokk ci ñi ko firndeel suñu digg moom waaw. na waaw bokk na ci ko firndeel sun ah moom mii suñu moom waaw. loolu lay leeral sëriñ Fallilou ak sëñ Modou Massamba Diop Samb seen taalibe googee ñu jàppantewoon seen cofeel googee moom mi ak nun ñii nee na bokk na ci li firndeel diggante bii nee taalibe googu nag yàlla na sax ci suñ biir rek te dara nag bañ koo yàq rek jamono jii moom am pik taalibe daa jafe waaye kon nag ñu ñaar ñi ñu boole ñoom ñaar ñoom ñaar ñi nga xam ñooy jóg ci taalibe gi nañ ñu dugal seen biir ñoom ñooñu rek ba xam ne ñun sunu taalibe dara du ko yàq rek jamono ji daa doyul waaye waaye bu nekk ci diggante sëñ Mourou Massamba Diop Samb ak El Hadj dara du yàq sunu taalibe. na lu daal yéen jàppal sunu taalibe rek. ndax jamono jaa doy waar waaye bu ko dara yàq rek nee nee na daal diggante bi yàlla yàggal ko lool ñoom ñi ko sosoon daal nañ ñu ko téyel ba dara du ko yàq te am nañ ci yaakaar am na ci yaakaar baax a baax ndax nee na moom gis na ni fu ñu toll ñu ko gën a yokk ñaan yàlla yàlla sax. kon mi ngi ñaan ci yàlla suñu boroom loolu sax dak yàlla musal na ci pakk yi ak pexe yi ak pax yi. Hmm, jërëjëf jërëjëf Mbacke <laughs> jërëjëf Mbacke sant lan loolu daa tombe ñu nodd waaye diggante bi it Baye Sam Diop teew si na moom it ak mboolem sët yi rek sëñ Fallou Diop waaw sëñ Mouhamadou Diop mi ñu ci njàlbeen gi. mooy njiitul mboolem sëti sëñ Massamba Diop yi nga xam ne ñoo fi teew sëñ Mouhamadane Diop mi ngi nii teew ci ci mag ci sët yi yàlla na fi gën a yàgg nun tànd ko wér euh, sëñ Soñ bu Diop jërëjëf waaw guddi ga waa dañ koy fanaane ba jannatu laay ñu ngi ibaadullahi mi ngi lay sagoo islaamullahi sagbulay nga fi diini fi diini laayi ñu ngi lay damoo muriidullahi ñëpp la amel